leen waxee woon sànq yaakaar naa ne tey ñëwee tey ah, ñëw nañ ci ñu war a ñëw mi Pape Sarr ko xam xamee ko ci Pikine li ñu njëkk laaj rek mooy Pape Sarr fan la nekk ak nan ngeen ko préparé ak ak euh, làmb ji la leen jaral yéen waa waaw balaa may egsi foofu dama dafa am xam ne fa laa njëkkee fa balaa may wax dara dara foofu laa waroon njëkkee muy waa Touba. billahi wallahi képp ku fay yeewoo rek man gërëm naa la sant naa la gis naa ñaani ñoom ñëpp ñu ngi may woo ki ma siy njëkk nuyu muy suma sëriñ suma xarit muy sëñ Muntaxa bu sëñ Modou abib suma xarit la sëñ Xaadim mu ngi fa képp ku nekk Gàmbi di ma woo di nekk Touba di ma woo rek euh, ñaan yi ñëw na maa ngi ñëw aljuma foofu bu soobee yàlla maa ngi ñëw di ngeen ma gis gërëm naa leen ñoom ñëpp ak waa Tiwaawan maa ngi leen di gërëm bu baax damaa fat foofu laa waroon njëkkee parce que foofu rek laa xam waaw maa ngi leen di gërëm bu baax Eumeu Sène combat bi ni ma ko jëlee waxuma man maay waxuma man maay may sam bopp ndam de mais xam naa ni moom la da xam na ni su desee si gàllaaj kese démb si si signature bi xam na ni mënul jaar fenn Eumeu waaw démb rek bu demee si gàllaaj kese li ñu def yëpp dam koo teggi démb si biir salle bi 2STV xam nga làmb affaire mafia la avant ñuy dugg maa ngi nëbbatu ci duus yi ñu def li ñuy def ba pare dégg nga ma dévier sama mbër du loolu mooy daan ëmma seen liggéeyal dégg nga nga teg nga ñaan yàlla suñu borom mu may la ndam ñun de ñu ngi tàllal moom gàllaaj la gëm ñun ñu ngi tàllal suñu loxo ba pare yaakaar tamit suñu ñuy ñaanal mais loolu muy def noonu ak li fa xaw démb si saal bi ñu tege na ñun dégg nga li ma ni man bu may dugg ci làmb la de mu ngi frigoriste la waaw ñi ko wër estafam ñi ko wër ñëpp amul kenn li ma doon def ci làmb ñu ko siy def maa leen gën a yeewu ba sang. kon nga jàpp ne ñoom dañoo miine kon foofu. démb la ñu bëggoon li ñu bëggoon démb lañ ko buggoon a def ma njëkk leen ci biir salle bi nëbbatu gis li ñu def yëpp man ceddo laa bu mag waaye nañu xam ni ki muy bëreel fii laa ko dugal waxuma nag nekkuma. nekk ma fi di wax ni Eumeu seen da koy def li waxuma loolu de li des mooy ñu ngi tàllal loxo ñi ñu yaakaar ñu gën a ñaan di tàllal loxo yàlla ñun ya ñoom am na fu ñu yaakaar ñoom mu ngi wax am na fu mu yaa ñun ñu ngi tàllal loxo yàlla suñu borom ak ñu ñuy ñaanal ñu ngi leen di tàllal loxo di yaakaar si ñoom di yaakaar ci yàlla dëgg parce que li ma gis démb ah instant yii nii li ma di gis démb Lac de yaakaar ni lii mooy daan Eumeu Sène mu ngi nax boppam Bécaye Mbaye mu ngi koy junju mu ngi nax boppam billaahi mu ngi nax boppam. nee na yaakaar ne instant ngeen yéen ci ci mystique ak ci lépp. non man waxuma mystique gu Eumeu Sène man xawma ci lu toll nii li ma war ak moom laa la wax mooy saa yu amee tàkkusaan ma gunge ko. bi mu ma jëlalee drapeau roi des arènes bii nekk ci biir néeg bi indi ko ma fanaanoo ko fii laa wàccoog Eumeu Sène mais li ma indiwaat ci làmb ji mooy wax ju ñaaw ji la dageer teg ci kaw Eumeu Sène moo ma indiwaat ci làmb moo ma indiwaat ci combat bi wax ju salte boobu mu teg ci kaw Eumeu moo ma indiwaat ci làmb Eumeu Sène bëre naag adversaire bu ne li ko la dageer teg ci daram kenn musu ko teg ci daram te képp ku mu sa def gis ko nag lu leer laa lay wax nii dina la weex xatt mais dañuy gis waa Guédiawaye chaque jour ñuy toog naan ay Pape Sarr dañoo bëgg a tëj làmmiñam ci kombaa bi. liiru jaan moo wax loolu liiru jaan nag suma xarit la sekkuma ak moom lu dul su amee combat ma yóbbu ko ci ay Khadim Diagne indi ko tali bu mag moom li may wax ni mu ngi may dégg maa njëkk indi Pikine ñu may ko xaalis bu muy préparé wulli la xawma boobu miinante gu maag wulli noonu. ma dem boole ko xaadim jaañ xaadim jaañ yëkkati xaalis bu weex tàll mais comme woone ma téléphone mu ne ma da foo mais daa am lu ma wax bu ma woowul woon téléphone ma wax ci site bi li mu ma wax si combat bi man yooyu du ma ko foowee man ak moom ñoo toogandoo woon arène nationale man liiru jaan buusita ak ak fàllu kii na fi faal ñoo toogandoo si loos bi li mu wax dëgg na ko man dégg naa ko bu waxatee si sorti ma wax ko li mu wax. mais est-ce que mën nañoo xam lan dëgg ban wax mooy Eumeu Sène li nga sama combat ak Boy Niang liñ ci def Eumeu Sène sa raq la bëgg waaye bëggoo sa raq yi loolu la ci wax Eumeu Sène daa ñëw combat Boy Niang aj nañ ko ci ñuy te di tere loolu mu ñëw combat Ama Baldé fëgg la ñu aj ko si 6 mois loolu rakkam la nañ ko aj dix ans mais dina ñëw kon kooku noonu non la de guerre juum na quoi wax jooju mu wax jooju dafa ñaaw. loolu la andiwaat ci làmb ji looloo ma indiwaat ci làmb ji loolu ñaata ñaata nit lañ ko fa juboole ña ñaata nit moo Balla Gaye moo guy gi ku ne la fa jotel Gaston Meng ku ne ay ay audio yu mu doon wax ci Baye Ndiaye mu ngi nii si man vidéo bi waaw si affaire sëriñ boobu yoreel leen ñu desal xaalis lu mu waxul da koo fàtte pourtant munoon naa ñëw ma présenté leen vidéo bi dégg nga dégg nga Badou rek ko Aziz Ndiaye xarit la day liir suma statique gis na moom ko su ko se dégloo dina xam ne li may wax dëgg la day liir suma statique chaque jour rek ko Aziz Ndiaye Badou su ma xarit la du ay affaire u làmb mais loolu du sport dégg nga loolu du sport yàlla moo moom ndam bu fekkee ni da ngay ñëw fexe ni xaaral ma génne sort bi pour stade bi ëmma seen wéeti yaa ngi nax sa bopp. ba gën a jàpp. Pape Sarr rek Pape Sarr ne wax naa ko Lirou Diane nee naa ko récupéré nga ñaar ñi doon giiroon teg mbagg man mbagg Pikine cent mille francs nga leen jox ba pare côté seen numéro man ak ñoom du ñu benn. waaw man rus naa sax di wax Eumeu Sène suma soxla kon man ay cent mille francs man kenn du ma saraxee noonu imaginel Pape sar moo jóge fii dem parcelle si Modou Lo wala Pape Sarr moo dem si Balla gay jege ko ah ñaar fukki junni lu muy wàññi li nga defaloon si quinze ans yàqu drapeau bi ma yore dañ ma fekk ma yor ko te dañ ma waat nañ ma ma yor ko te bu sooba yàlla benn nit laa fi wóolu Pikine pour delloo ko muy Mor Talla Duñu Ngaaka di président ASC AS Pikine Diaz moo ko yoroon Diaz yàlla yóbbu na ko ba pare zéro faute mais déggoo li ma nag képp ku ma toppandoo ci li may def te maîtriser woo ko kaso nga jëm ñaata ak Pape Sarr Pape Sarr Pape Sarr musuma taab. sa gars yi nekkuñ ci ah, mooy dañuy ut bës ci yow des fois. non si Lirou Diane non utul bës Lirou Diane am na bës ba pare. non liiru Diane dama koy waxal lu rafet sama waay la suma xarit la mais bu mu génnee génneti sorti ndaw a war a wax ak mbërëm bi nga xamante ne képp ku am feebaru hémorroïde si combat bi nga ko amee te ñëpp xam nañ ne hémorroïde toogaay bu yàgg moo koy indi bépp amateur bu amee feebaru hémorroïde hémorroïde ah si combat la daggéer nga ko amee man musuma bëre quatre-vingt-dix minutes ama seen la daggéer ko tàmmal bare ba ñu mi-temps ba fin du dëgg moog Modou Lo lu mu waxul da koo fàtte bu ma la jàppee li yëg li li sosal Modou loo xamante ne lu raw li mu sosal Eumeu Sène du mais moom nee na combat bi du am niil la nii est-ce que déggoo li ma la wax li muy indi lépp xam nañ ko li muy indi lépp xam nañ ko lépp. li mu moom li muy indi ak li muy liggéey lépp xam nañ ko. li muy indi lépp xam nga man xaw ma seen Sène ban tànk lay teg ah dégg nga kon jàpp na confiance nag am na si droit mais bu mu fàtte maako daan maay sël mbër bu ko daan man kese maako daan dégg nga man kese maako daan nee na dafa bëgg nekk roi des arènes ah ah loolu la wax. dafa bëgg nekk roi des arènes te man xam naa ban saar la bu ko ama jëlee day dëkk ama day bëgg combat bi taxaw. Mhm. mu non mun na nekk roi des arènes man du ma yàlla la de mun na nekk roi des arènes parce que champion la mais dama ne la bis bu ama nekkee roi des arènes da koy bëgg nangu ci moom. Hmm. waaw parce que ñoom ñaar dañ doon dëkkante ama di ko laajte am na lu mu def waaw am na lu mu def. moom rek mooy def fii moom rek moom rek su ma waay la fu ma romb def may nuyu fekk na ma ci salle bi dem ma nuyu ma Pape Sarr ma ne ko waaw lak waaw fekk ma may mu xam ne ni li ñu tabaxoon yëpp maasale naa ko <laughs> loolu saraxewuñu de ñun dañoo dañoo yàgg dañoo dugg ci làmb fekk takkagul ngemb waaw dañ ko dañ koo njëkk xam làmb li ñuy def yëpp xam nañ ko ñi ci bokk tamit xam nañ leen ni ci bokk nañ jël palaasu yàlla ñi ci bokk noonu nekk ci nañu jël palaasu yàlla lii làmb la feebaru dof la foowu dof ku ko bàyyi wër am na loo xamante ne nag jaru ko xam nga foowu dof mooy làmb mais ku ko bàyyi rek wër am na loo xam ne nag jaru ko. mais combat bi na ko koy waajalee parce que yaakaar naa combat bi Pikine lañ koy bëree arène nationale mu jege leen loolu. waaw mais loolu noonu Bada ëllëg du nekk benn pression ci Eumeu Sène mu nekk premier combat li ñu waroon a jëlee Ndiaga Ndiaye dañ koy dajale jënd ko ay billets ñun lu ñu waroon jël pour ay Ndiaga Ndiaye daan dem ay Demba Diop amitié moom la ñuy jël jënd ko ay billets dox tëli bii nii moo dem ba arène nationale bi juróomi koñ la ridis ngay jéggi rek ma dugg arène nationale xam naa ne pikin moom amuma ku ma gën a jege arène bi ñii daaru la ñuy jóge xanaa ñuy jóge kii mbaaw ñooñu gàcce ngalaama ñooñu xanaa ñooñu mais Pikine rek mm-hmm. añ dugg si biir stade bi la. mais mu nekk premier combat Eumeu Sène fii arène nationale Pikine. Mm-hmm. foofu laa waxee baadu ba maam baadu def dara ci Eumeu seen ak ñu leen ko préparé ba xam côté boobu liggéey. xam nga lu ma gën a may confiance wax ju rëy ji mu waxoon booy ñaa ñëpp gis combat bi nu mu demee man a kii tey bu jàppee Boy Niang tey mu rey ko tey mu rey ko. yooyu lay def day bàyyi ba mu des ba mu des trois minutes mu lay forcer pour supporter di la jaxase ak àdduna loolu la def booy ñaa day des trois minutes boobu bu ko bu bu jeexoon moo ëpp avertissement booy ñaa mais affaire xale jàpp booy ñaa mais booy man booy ñaa bu téye woon boppam loxo booy ñaa la ñuy yëkkati day bàyyi ba ko loolu la def Modou Lo day bàyyi bu ñëw nekk foofu du bëre toog ci ay tànkam. dégg nga teg bara deg kaasam dégg nga du du bàyyi xel ñi am hémorroïde di seetaan te ñëpp xam nañu hémorroïde baaxul ci toogaay bu yàgg baaxul du dëgg nee na day xeex ñu ngi koy xaar mais daal maa ngi maa ngi koy maa ngi koy maa ngi koy dénk dara ah nit daal day jàngaloo mën doo bàyyi ba egg fii nga ne màgg nga bi ngay bëreeg Batika kañ la bi muy bëreeg Batika mu ne màgg la mu ne xale la woon xoolal Batika dégg nga moog Batika métti trop muy champion Batika mu naan Lac de Guiers ne xale la bu muy bëreeg Pathé Baldé nga paru Lac de ñaata at nga am bi ngay daan Pathé Baldé nga paru yow Lac de ñaata at nga am. moog Pathé Baldé bëre nañu bi bombard bi bi bi Jules Baldé di daan bombardier croisement nga paru si rond bi boobu Lac de Guiers numéro mu ngi yor foofu benn benn boîte de nuit nekk fa videur mbapat am foofu nga paru Lac de Guiers bii tey di bëreeg Eumeu Sène moo fa daan moo fa daan Pathé Baldé te Pathé balde soixante-dix-neuf la juddu la de Guiers ñaata at la am soixante-dix-neuf ak léegi ñaata at la. da bëgg a jàpp Lac dama ne la soixante dix ak léegi ñaata at la Lac de bi ngay bëreeg Pathé Baldé nga paru maa yóbbu Pathé Baldé nga daan ko te Pathé Baldé 1979 la juddu Jules Baldé di fa daan Bombardier kon yow la de bi ngay naan xale nga woon léegi yow ñaata at nga am. xanaa du da nga ne da am six ans di bëre Pathé Baldé dénk naa la loolu nga calculer say at ngay calculer say at dégg nga ngeen bàyyi mag bi ngeen di wax Eumeu Sène barki yàlla mun na ko jur. la dëgër nga bi muy nekk frigoriste fii fii Canada fii frigoriste laa ko xam la dëgër bi ngay bëreeg Pathé Baldé laa la wax nga paru la dëgër ñaata at nga am. yow bëree woog Pathé Baldé ci 11 ans te Pathé Baldé 1979 la juddu 1979 la juddu loolu moom dama ko wax senegal yëpp dégg ma. billahi wallahi watalahi daan na bal Baldé nga paru bi muy daan Pathé Baldé boobu ñoom assurance ñëpp a ngi assurance bu mbuur ñëpp a woon ci mbapat bi bombardier Gilles Baldé moo ko fa daan du dëgg. après si la bi amoon Assane Diouf bi Balla Gaye jël dégg nga Balla Gaye moo fa final ak Alioune Seye waaw Balla Gaye daan fa Tafatine Tafatine daan fa Aliou Sera suma rek dégg nga dégg nga ñoom Batika ñëpp a woon ci mbapat bi dégg nga te Lac de Guiers premier tour la toog waaw ko daan premier tour la abale dégg nga wax ma ban mbapat la Lac de Guiers musa bëre fii pikin ñëw fi Pikine nag ñu ne ma mbër bii la daan mbapat fii pikin fii benn mbër moo fi dugg bëre fi daan fi muy Sa Thiès daf fi ñëw Alioune Seye Alioune numéro 2 Boy sey numéro 2 daan ko fii bu pikin mbooloo dégg nga Ama Baldé jëlal ko fi revanche mu ñëw fii daan fi Modou Fara mbapatu wa Angar fii mu finaaloog saa Fandoum Zil Baldé séddale leen nag yi kooku daal laa nangu champion Sa Thiès mbapat bi mu koo xam ne mbër la boo xam ne bu jóge géejawaay ñëw fii toj ko. mais mënoo nangu à euh, champion wu à euh, Lac la mais fu mu ubbee làmb mbapat ñëw fii Pikine Pikine fii dugg fi mbapat rek dem ñibbi la de Guiers musu def Sa Thiès moo ko fi def dégg nga Sa Kajoor dégg nga Sa Thiès Sa Kajoor Alioune Seye 2 ñooñu laa ko fi xamee ñoom Batika ñoom euh, Boy Yaraax ñooñu ñoo fi nekkoon. di fi toj mbapat yi ay mbapatu Mbaye Samb ñoom Ousa Sow ñoom pappa Sow ñoo lañ mais Lac de Guiers kan moo ko mus a seetaan mbapat fii Pikine wala ay parcelles ak yooyu noonu Lac de Guiers ban mbër màgg bëre la nekk frigoriste ba frigo yi doxul nga dugg ca làmb du dëgg dégg nga loolu muy wax Eumeu Sène nag mag la ak amateur yi di seetaan ne mag la man maa yóbbu Pathé Baldé bi muy daan Pathé Baldé te Pathé Baldé 1979 la judd 1979 la juddu. kon Eumeu Sène magul la dëgër. non non non mukk si àdduna ku juddu 1979 di bëreeg Pathé Baldé magu Ama Baldé Pathé Baldé am nañ Pathé Baldé am na ñetti rakk ñetti ñaari rakk yu mag Ama Baldé ñaari rakk yu mag Ama Balde. aussi tamit ñu gis ne à Pikine euh, mu am ñetti combat muy euh, Mourlo ak Ama Balde jugee fa demaat euh, kii nii euh, Boy Niang ak Tapha ak Eumeu Sène ak la de Guiers bi mu nekk trois combats affiches yoo xam ne ay combats jànk la combats yi du yomb seen nag Eumeu Sène war a njëkk bëree léegi loolu est ce du def dara ci Pikine ak lu mu war a bëree. non loolu du def dara ci Pikine yàlla dafa doon def suñu rakk Ama Balde moo doon moo doon njëkk a bëree te saa yu njëkkee bëri rek yàlla defal ñu mu mu ubbi affaire yi ubbi porte bi. dégg nga dégg nga yàlla def Ama Baldé ñëw daan Papa Sow Boy Niang ñëw daan Sa Thiès Eumeu ñëw daan Bombardier du dëgg waaw loolu miis nañ ko fii du dëgg man defet du ma def tuus ñam naa bu ne du dëgg mais Pape Sarr combat yi yoo xam ne Pikine waru koo ñàkk la de. non yàlla tere ñaanuñu ko yàlla. ñaanuñu ko yàlla ñàkk ko waxuma loolu dama ne la defet du ma def dara defet du ma def dara du ma def dara ñam na dem naa bànneex ñam naa lu neex lépp lu ñëw damay xam ne lii suñu borom moo ko def booy ñaan ñu ngi koy ñaanal yàlla mu ngi préparé pare na du caaxaane bés du foowee bés Ama Baldé pare na. du caaxaanee bés du foowee bés ñun suñu ñun ñoom ñun ñoom la am ngir yàlla may wax nit ñi nit ñu bees ñi nañ ñu génn nañu génn sama diggante xale yooyu ñu xam ne li ma ci mën nit amul jot boobu ñu xam ni man li ma ci mën amuñu jot boobu ñoom dégg nga yàlla nañu yàlla musal ci ñi nga xamante ne boo daanoo daanuwaat rek ñu bàyyi la man meluma noonu man damay dama lay topp te utuma ci dërëm te yàlla tax ma xam ni man ñii dam leen war a boot parce que samay rakk lañu ñii dam leen war a taxaw parce que samay rakk lañu ñu respecté ma dégg nga samay digganteeg ñoom bu ñagasee rek seytaane yi la ñi nga xamante ne tey bi mu ciy nekk kenn fekkuma ci dégg nga ñu yor xaalisu xale xam nga xaalisu xale lañ yor dégg nga man yoruma xaalisu xale yoruma dërëm waaye yor naa nit ñoo xamante ne lu ma bëgg faj-faj ko dégg nga mën naa loo xamante ne nit fi ak cent ans nit du ko fi def pikin ñu bàyyi ma sama rakk yii bi may nekk si ñoom kenn fekku ma ci ñu bàyyi li ñuy def ñu bokk ñu ñëpp ndey ak bàyyi du dëgg pikin waa yëpp génn dégg nga taaral combat Ama Baldé bi taaral combat Boy Niang bi ñëw taaral combat Eumeu Sène bi ñu man loolu laa xam man xaw ay xaajaloo xaw ko mais ku ma si respecté wul ma téye sama bopp ah ku ma si respecté wul joxoo ma cër bi ma moom di ma jëndee ñi nga xamante ne ah deux mille vingt la ñu dugg si fii pikin ma téye sama bopp ah mais ñoom ñëpp damaa sonn ku. ku ubbi sama xol bi ñoom nga ciy fekk ñoom ñetti xale yooyu muy soq maam Balla Bàcc Seeraas ñoom ñëpp samay rakk lañu man du ma toog deux jours te déggante wu ma ak Bàcc Seeraas te pourtant nit ñaa ngi koy bëgg a fàtte am lu lu rëy lu mu def fii Pikine moo fa indi fans club moo fa indi chorégraphie ngir yàlla war a suul nañ ko siy boole nañu woo ñëpp Eumeu Sène ku mu woowul rek da laa fàtte wala dafa fàtte wala combat bi moo ko egg foofu Ama Baldé ku mu woowul ku mu woo na nga ñëw ku mu woowul na nga ñëw Boy Niang ku mu woo na ñëw ku mu woowul na nga ñëw ñu bàyyi nettali yi di defar man loolu laa xam mais man ku ma gis muy nettali bëgg yàgg diggante ak nit nga ñëw bëgg nëbbu Eumeu Sène bëgg nëbbu Eumeu Sène génnee Ama Baldé dootoo ko def wala nga bëgg nëbb Boy ñaa bu ko génnee Ama Baldé doo doo ko def man de kenn du ko def sama kanam yàq deru Ama Baldé bëgg nëbb booy Niang yàq deru Boy Niang bëgg nëbb Ama Baldé yàq deru Eumeu Sène bëgg nëbb Ama kenn du ko waxee sama kanam jamais moo lay wan suñu cent pour cent bi tasul xam nga ñan ñoo ko tas ñu ñu jox cent mille ñu noppi ba aduna du dootuñu jox sit di wax ci mbër bi teg seen làmmiñ quoi. teg seen làmmiñ si ñaar fukki junni seen làmmiñ si ñaar fukki junni man suma xarit dafa génne ay vingt et quelques millions muy Alain jox ma ma tëgg làmb ñu dugg ñu dëkk fii ci quartier boo xamante ne quartier Teranga dégg nga suma téléphone bu ma ko yëkkatee teg sama nopp lu ma bëgg faj faj ko waa diaspora bi ñëpp su ma amee sama soxla mu wóor ni man aw ma lii nii soxla bi damay yëkkati am ku ma woo suma ma rakk yaa ngi Europe ñii Italie ñii Espagne ñii ñii États-Unis dañ koy faj ci une minute saa ngay wàccee sa drapeau xam nga am na ñoo xamante ne ñu ngi fëgg seen loxo naan nii soo demee mairie Pikine bi duñ la fa génneel seen extrait booy demee si mairie non ñu fi dëkk tey am na ñu fi dëkk tey ñu foral Ama Baldé du waxuma dëkk ñi fi doon ñëw di giiranteeg Pape Sarr mbagg demal site li may wax ci site. di ko wax ci samay adversaire ku ma si toppandoo dangay dem kër jaaji njaay xam nga ku jaaji njaay ku gérer cent mooy jaaji njaay ba tey demuma fa parce que xam naa li may wax xam naa fi ma ko teg xam naa sama sama gëm-gëm te ragaluma waaw te ragaluma man ragaluma de billaahi wallaahi tallaahi ragaluma mais mais Pape est-ce que mën nañoo tuuti rek ci loo xam ne Lirou Diane waxoon na la ko nga digal ñu ci tuuti rek. <laughs> Lirou Diane. xam nga sama waay la. mais dañuy digal tuuti quoi. xam nga Lirou non non non Lirou Lirou wax dëgg yàlla suma waay la te bu amee combat man dama si jàpp suma nit la téléphone baa ngi fee may chargé. mu ngi moom mu génn ba pare di wax loolu ci Pape Sarr na Pape Sarr laa bëgg tëj gémmiñam mm. dafa waroon wax la dëgër ngir yàlla bëreel. yaa ngi ñuy rusloo. loolu la war waaw. loolu la ko war a wax waa saa muy ñëw ci man ngir yàlla la dëgër dëggalal sa bopp nga taxaw mais déggoo ma ne gisuma ku ma mun a noppiloo ci làmb pikin gisuma ko ak lu munti xew nit du ma noppiloo des naa dese naa ay événement soq mu ngi waaj a bëre ma damaa dese ay événement du ay liiru jaan moo may noppiloo dinaa la. dinaa la mosol tuuti ci li ma wax. <laughs> loolu lañ bëgg quoi nga rek quoi. dama ko doon draye quoi. Mm-hmm. ma ne ko waa yow liiru jaan. waaw kilifa baa ngi nii ma jox benn waay mu def ko baatu sëriñ yooyu. Mm-hmm. ma ne ko ah. la dëgër bu daanee ëmma seen sëriñ bi nee na kon Balla dañ koy dóor mu daanu de mu ne ko mukk moom moo wax loolu waaw mu ne ma mukk sama xarit nga bàyyi li ma ne ko ah mu ngi nii nag bu la dëgër bu ëmma daanee la dëgër nag. waaw Serigne baa ngi ni fekk maa ngi koy tooñ de Balla Gaye day dóor Bombardier mu daanu